Euh, asalaamaaleykum sama mbokk sénégal yi nekk fii ci biir Argentine maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ndokkeel te di leen sargal euh, di leen baal àq te di leen baalu ak aussi ci korité bi ñu jóge nii euh, di ñaan yàlla gën a yokk wërsëg yi yàlla may ñu wér-gu-yaram ak gudd fan. di remercier aussi waa Touba Argentine TV. ñi nga xam ne tey ñoo ma may opportunité bi pour mu mën a jàkkaarloog sénégalais yi ne fi Argentine am ay information yu ma leen bëgg a jox euh, Touba Argentine TV il faut ñu remercier leen parce que ñu ngi def liggéey bu am solo euh, ay jeunes la yoo xam ne vraiment yu ambitieux euh, te ñu ngi bay seen ñu ñu ngi béy seen wàll ci waar bi quoi donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax li tax tey nag ma jàkkaarloog yéen di leen indi information premièrement mooy euh, ci ay fan yi ci ginnaaw def nañ benn communiqué annoncé ne dafa am benn commission bi fi ñëw pour wàllum mbirum passeport yi euh, bu ngeen fàttalikoo ay weer ci ginnaaw am na benn commission bi fi ñëwoon mais bi fi commission bi ñëwee euh, sénégalais yi fi nekk yëpp te soxla passeport yàlla def na jot ñoo déposé ñooñu bi ñu demee li ñuy wax sénégalais yi mooy ñun ñu ngi continuer di xeex di xeex di jéem a Euh, suñu autorités yi ni ci des Sénégal comme quoi que majorité sénégalais yi newoon fii te soxloon passeport presque déposé ñu donc ci lañ ci nekk nekk ci ak ay bonne volonté yi ñu ci jàppale euh, ba yàlla def na am na beneen commission bu war a ñëw commission bi nag actuellement mi ngi Brésil mais incha allah rabi le 2 dinañ ñëw Argentine su ko defee le 3 le 4 ak le 5 dinañ mën a liggéey ak ñun fii ci Argentine. maanaam képp koo xam ni sa passeport dafa jeex wala sa passeport dese na 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois ba un an mën nga ñëw déposer donc ñu ngi ñaan sénégalais yëpp ñi nga xam ne seen passeport dafa jeex mën nañ indi seen passeport bi jeex ak photocopie bu ñu ñëwee dinañ mën a déposé ak seen carte d'identité nationale bu ñu ko yoree photocopie carte d'identité nationale waaw. ñi nga xam ne aussi seen passeport dafa réer mën nañ indi seen mën nañ wut certificat de perte certificat de perte bi impérativement foog ñu indi ko bu ñu ko indee ñu indi seen photocopie document aussi maanaam carte d'identité nationale bu Sénégal su ko defee ñu ñëw mën a déposer ci kaw loolu frais de dépôt yi maanaam quittance bi cent vingt cinq réal la ñuy laaj bépp sénégalais bu bëgg a déposer cent vingt cinq réal maanaam amul dollar amul peso cent vingt cinq réal ku ci nekk na nga wecceeku cent vingt cinq réal booy ñëw nga indaale ko en plus cent vingt cinq réal yooyu kuy ñëw na indaale pour le moment deux cent pesos lañ jàpp ça dépend aussi ci ñu parce que affaire salle bi ñu ngi koy lijjanti ba léegi sotteegul euh, incha allah xëy na fii ak suba dinañ dinañ ci am lu leer su ko defee ñu mën a informer sénégalais yi ci kaw loolu pour la moment kuy ñëw da ngay indaale sa deux cent pesos yoo xam ne. moo 200 pesos yi moom la ñuy dajale maanaam pour fay billet waa ji gars yi jógee Brasilia ñëw fii maanaam ñun Argentine ñun ñoo jël en charge billet waa ji ak hôtel bi donc fi ñuy dal hôtel bi ñuy nekk seen séjour yëpp ñun ñoo ko jël en charge ñun ñoo jël aussi billet bi aller retour en plus de cela il faut ñu fay salle bi donc loolu moo tax ñuy laaj 200 pesos pour le moment. Euh, képp kuy ñëw déposé nga joxe deux cent pesos yu bokkul ak cent vingt cinq réal yi ngay joxe pour quittance bi waaw ci kaw loolu aussi comme ñëpp xam nañ ne association moo nekk di daw ci affaire yooyu yëpp boobu ba léegi affaire mbirum passeport yi dinañ laaj képp kuy ñëw aussi carte de membre yi boo yorul carte de membre nekk à jour aussi boo yegsee ci jour boobu nga jënd sa carte de membre fexe nekk à jour comme ça nga mën a bokk ci ñuy déposé loolu aussi affaire mbirum passeport aussi dañ ciy ñaan sénégalais yëpp ko euh, parce que dernière fois bi gis nañ li fi xewoon coow li bari woon na désordre amoon na ba xëy na li ñu waroon def sax jotuñu koo def donc ñu ngi ñaan sénégalais yëpp képp ku ci nepp képp kuy ñëw déposer passeport nga ànd ak vraiment tey te xam ni bu ko yàlla dogalee ñëpp dinañ déposer ku nekk déposer dem sa yoon bu yàlla defee aussi ñëpp déposer wuñu dinañ ko ne aussi di ko xeex fexe am beneen commission bu buy ñëw pour compléter dépôt yi mais ñaan nañ yàlla par exemple ci commission bii di ñëw nii ñëpp mën a déposer ku nekk dem sa yoon donc na ñëpp ànd ak tey euh, ñu xam ni ñun lieu bi ñuy loué par exemple pour ñu fay déposé passeport moomuñu ko ay nit a ko moom donc dañ fa roy wane discipline ah wane fa organisation aussi waaw donc loolu lay ñaan sénégalais yëpp waaw ñu jàppale ñu ci loolu. ñu xam ne affaire yi yombul organisation bi yombul donc ñun ñoo ci mën a jàpp donc incha allah liggéey bi xëy na buñ ko dooree dina commencer huit heures mais à partir de sept heures képp ku fa ñëw nga ràng boo ràngee dina am koo xam ne dina jël liste bon parce que li tax ma wax loolu mooy li xewoon bi passé la ñuy bañ maanaam képp ku ñëw rek jël liste képp ku ñëw jël liste maanaam mu am ay liste yoo xam ne bu yàggee day jaxasoo donc ñun dañu délégué kenn koo xam ne mooy ñëw jël liste bu jëlee liste ba pare dina joxe ay ticket pour le moment li ñu estimé ne moom la ñu mën a def par jour mooy cent personnes donc bu ñu joxee cent ticket bu ñu joxee cent ñi ci des ku ci nekk mën nga dem defi sa liggéey wala yu demee noonu mais cent ticket moom dinañ ko joxe par jour waaw pour le moment moom la ñu estimé ne waa ji moom la mën a def par jour donc ku ci ñëw na nga respecté rang bi boo rangee. ki ñu délégué ñun pour mu joxe ticket yi bu ñëwee dina joxe dina xool ñi jiitu par exemple mu jox leen ticket yi ba 100 ticket yi mat bu 100 ticket yi matee dinañ ko arrêté foofu su ko defee 100 personnes yooyu ñu ñu yor ticket mën a déposé waaw donc euh, loolu laa bëggoon leeral sénégalais yi aussi di ñaan sénégalais ñu jàppale ñu ci képp koo xam ne aussi yéene nga par exemple ñëw jàpp ci organisation bi tu es le bienvenu nga ñëw jàppale ñu ci organisation bi Euh, donc ma leen di gërëm di leen sant ci côté boobu ci côté passeport yi donc loolu laa amoon message boobu laa amoon pour véhiculer. bon ci beneen fànn aussi mu ñëwaat ci beneen événement aussi bu am solo boo xam ni dina am aussi ci semaine yi di ñëw incha allah à partir du 17 juillet euh, am na aussi beneen commission buy ñëw buy jógee ambassade Sénégal bi ne Brasilia donc mooy leen dina am commission buy ñëw pour carte consulaire yi. bon ñëpp xam nañ ni képp kuy sénégalais par exemple te nekk fi Argentine war nga am sa carte consulaire carte consulaire yi mooy wane ni sénégalais bi kat ah bi mu ñëwee wane na ci ambassade am ne moom mi ngi fii biir Argentine comme ni ko sénégalais ne Brésil waree am noonu la ko ñun aussi noonu lañ ko waree am comme ñun ñu ngi dépendre si suñu ambassade bi ne Brasilia donc dinañ fi yabal benn commission boo xam ne bépp sénégalais bu ne fii Argentine Euh, war nga ñëw déposer sa carte consulaire donc loolu aussi ñu ngi ci ñaan sénégalais yëpp ñu ñëw mobiliser wu ñëw su ko defee ku nekk mën a déposer am sa carte consulaire ci kaw loolu commission boobu aussi euh, am nañ information comme quoi que ambassadeur bi dina ñëw nemmeeku si ñi ñëpp xam nañ ni depuis bi ñu nekkee Argentine fii amul benn ambassadeur boo xam ne par exemple ñëw na nemmeeku si sénégalais yi fi nekk. donc ki nga xam ne bi mu fi nekk ak léegi yàggul wax dëgg yàlla euh, wane na volonté euh, jóge Brasilia ñëw nemmeeku si sénégalais fi nekk parce que jamono yee ci ginnaaw jaaroon na fi waxtaan ak ñun biñ bi mu ñu recevoir ñun waa bureau association bi daf ñu ne dinañ ñëw beneen yoon dinañ ñëw visiter si sénégalais yi nekk fii Argentine donc euh, am nañ information comme quoi que jokkoon nañoo moom nee nañ dinañ fi ñëw. à partir du 17 su ko defee sénégalais yëpp dinañ am benn assemblée générale boo xam ne dinañ ko organiser su ko defee ambassadeur bi toog képp ku am laaj boo koy laaj nga laaj ko ko su ko defee mu waxtaan ak sénégalais yi nekk fii yëpp ci Argentine donc muy événement bu am solo boo xam ni aussi ñu ngi ñaan sénégalais yëpp teewu ci yaakaar naa bu jotee aussi dinañ leen wax lieu bi ak euh, heure bi ak jour bi incha allah donc ñu ngi ci préparatifs yi euh, di ñaan sénégalais aussi comme ni ma ko waxee sànq carte consulaire yi. képp ku nekk si Sénégal fii Argentine bépp sénégalais bu ne Argentine na nga xam ni carte consulaire yi concerné na ni la passeport yi concerné noonu la la concerné donc bépp sénégalais bu nekk fii war nga ñëw déposé sa carte consulaire incha allah donc dañoo prévoir xëy na pour waa ji mën a déplacer wu à l'intérieur du du du pays mais du mën a nekk parce que fan yi mu fi am fan yu néew la ay 4 jour la fi def donc ñu ngi ñaan sénégalais fépp sénégalais nekk fii ci Argentine nga def le déplacement ñëw capitale déposer sa carte consulaire. su ko defee ñu mën a xam su boobaa nañ yombal liggéey bi yombal ko ñëpp quoi yombal ko autorité yombalal ko ñëpp ñu mën a xam ñaata sénégalais ñoo nekk Argentine ak yu demee noonu donc carte consulaire dafa am solo ñu ngi ñaan bépp sénégalais mu xam ni carte consulaire dafa am solo mu déplacé wu ñëw déposé carte consulaire waaw ci côté carte consulaire aussi ak visitu ambassadeur bi yaakaar naa loolu laa amoon information yi ma leen di jàll maa leen di gërëm aussi. Euh, troisième point bi may aborder mooy. problème mu précaria yi parce que actuellement nii bis bu nekk sénégalais yaa ngi woote par exemple di di di ñaxtu di di inquiété wu précaria yi nga xam ni immigration fu mu toll nii ñu ngi leen di nangu waaw loolu damay expliquer ni procédure bu normal la maanaam nit ki boo duggee ci dëkk bi euh, ñaan réfugié ne man daw làqu laa damay ñaan réfugié donc li ñuy def mooy dañuy jël sa dossier bu ñu jëlee sa dossier ñu jox la précaria donc précaria boobu ñu lay jox dañ la koy jox di la ko renouveler par trois mois mais ci biir loolu dañuy étudier sa dossier su ko defee dossier bi bu ñu ko étudier étudier boo xool ne yow ah li nga wax ci biir dossier bi kat taxul ñu considérer comme réfugié dañuy rechasser sa demande bi maanaam dañ lay dàq comme ni ñu koy waxee fii dañ lay dàq ne la yow li nga expliqué fii taxul nga doon réfugié waaw léegi ci biir loolu dañ lay may dix jours par exemple ne la mën nga def appel waaw boo defee appel ñu delloo la précaria bi jébbal dossier bi ministère de l'intérieur léegi au niveau du ministère de l'intérieur aussi dañuy jël cas bi di ko étudier mais entre temps yow sa précaria dañ la koy delloo di la ko renouveler le ministère de l'intérieur aussi bu étudier cas bi ba xam ni xool ne yow yelloo nga ñu jox la statu réfugié ñu jox la ko mais bu ne kii Euh, li mu fi expliqué taxul ñu jox ko réfugié dañ lay dàq comme ni koy waxee bi dañ lay dàq léegi su ko defee su boobaa bu ñu la dàqee ñu bari ci cas yi mel noonu lañu am fu mu toll nii xëy na temps yi cas dafa bari euh, mën nañ ne kaay dafa bari quoi maanaam dafa ñëwandoo Sénégal la bari ñu ci bari ku ci dem boo demee di renouveler ñu ne la dàq nañ la donc xëy na ñoom ñoo accélérer seen procédure mais procédure la boo xam ne seen normal donc ñoom ñoo accélérer affaire bi xëy na. Euh, bu yàgg xëy na dañ doon may nit ñi plus de temps mais fi mu toll nii xëy na may ñu nit ñi plus de temps dañoo accélérer affaire bi mais aussi foog ñu reconnaître ne nit ñi dañoo déposé ndoo euh, précariat donc xëy na bu ñuy dàq dañuy dàqandoo ñu bari quoi euh, mais di rappeler Sénégalais rek ne bu ñu inquiété wu parce que affaire bi am na ñu ciy dox waaw association bi mu ngi jokkoog ay avocats yi gars yi bari ñu ciy dox. ba affaire nag du gaaw du loo xam ni da ngay ñëw tey mu mu sotti tey wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo euh, ñu mel ni ñoom Moustapha ñoom Babacar ñëpp bureau bi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dox ay jéego yu am solo ba am nañ yaakaar ne précaire dinañ ko delloo Sénégalais am nañ yaakaar ne dinañ ko delloo Sénégalais yi parce que ñu ngi dox ay jéego pour ñu delloo Sénégalais yi seen i précaria parce que aussi mënuñu toog noonu sans benn papier boo xam ne dina leen permettre par exemple ñu mën a séjourner ci dëkk bi xëy na ñu bëri jaaxle nañ parce que am na ñoo xam ne dañoo daggoon billet pour dem Sénégal ñu dem ñu ñu nangu seen précaré ak yu demee noonu mais nag ñu ngi leen di xamal ne aussi képp koo xam ne da nga bëgg a voyager na nga nemmeeku aussi si situation balaa ngay dagg billet waaw parce que boo daggee billet aussi nga dem ñu ne la sa ko téye wala yu demee noonu xëy na ngay perte bi wala nga war fay ay multa yu kenn xamul. donc ni nit ñi dem nemmeeku seen situation avant ñuy dagg bee ñi nga xam ne ñoo bëgg dem Sénégal nañ nemmeeku seen situation immigration avant ngay génn dëkk bi waaw euh, avocats yi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def ay ñu ngi ciy def ay ay ay jéego donc képp koo xam ne dem nga ñu nangu sa précarité demal ci avocats yi fii Babacar Sow nekk boo demee foofu yaakaar naa dañuy jël say coordonnées jël sa numéro téléphone ak yooyu yëpp su ko defee incha allah bu affaire bi sotee dinañ woo ku nekk. nga ñëw ñu régler ñu jéem a solutionner ce problème mais daal wax dëgg yàlla am nañu yaakaar ne seen précarité dinañ leen ko delloo bu neexee yàlla incha allah te di ñaan sénégalais aussi ñu ñu vigilant ci côté boobu ñu aussi moytu euh, dem di dagg billet wala réserver ay demee noonu te yow amagoo lu leer ci sa situation boo demee ba renouveler bañ renouveler la léegi nag bu dee da nga dem Sénégal bu dee précaria sa situation précaria permettre na la nga dem Sénégal nga door a mën a dem Sénégal Euh, donc loolu lay ñaan loolu lay ñaan sénégalais yi ne leen ñu patient aussi foog ñu patient aussi quoi ñu bañ a inquiété wu parce que aussi di loo xam ni day dañ koy kii tey rek mu sotti tey quoi donc ñu ngi ciy dox ay jéego te bu soobee yàlla yàlla nañ ci yàlla may ndam quoi euh, jërë ngeen jëf.